mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon ci programme bi gannaaw boo xamee ne kàddu googu passé na di kàddu Alioune Abi Talib Lopes euh, ñu agsi nag ci kàddu ki nga xam ne moo jiite mbir mi président national bu ansaaru diin fadilatu cheikh Mouhamadul Munhamina Ibrahim ñas mu ñëw ci kàddoom gi nga xam ne mooy wax ci turu ansaaru diin ci euh, programme bu rëy bii nga xam ne mooy gàmmu jëppal kon sëriñ bi fadilatu cheikh mouhamadul mulhamina fa ilaykal kalima asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala euh, jullit yi ci àddina bi yëpp mm, rawatina euh, mbokki taalibe yi fu ñu mënti nekk ci àddina bi ci biir Sénégal ak bitim réew ñu ngi leen di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di leen dokkeel di ndokkeel suñ bopp ndokkeel ci lan mooy ne ñu ngi jëm ci feetu gàmmu bi nga xam ne moom lañ doon wax gàmmu jëppal euh, ñi di ko defee fële ca dakaar muy gàmm goo xam ne ci Medina ci taarixu madina ci histoire madina ci événement yi gën a am solo la bokk damay wax ne gannaaw gàmm gu mag gi nga xam ne mooy gàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu doon def ci Medina nga xam ne amut événement bu ko gën a rëy te événement yépp ci moom la jógee parce que diine yépp mi ngi tënku ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent boobu nga xam ne moo indi diine ji bëggu ko moo jiitu ci jëflante ak moom boo ko bëggee da nga ko nangoo xam soo ko xamee di ko nangoo topp soo ko toppee texe àddina ak àllaxira loolu mooy li nga xam ne moom la bàyyi sa waxoon kon lépp événement yëpp mi ngi jógee ci gàmmu waaye nag xam ngeen ne yonent bi sa alayhi wa dafa juddu ci weeru sëriñ mu juddu ci weeru gàmmu waaye daf dafa tombé woon nag ci weeru tubaab mu julli judd ci weeru avril ni nga xamee ne nii bàyyi bi am ñoo xamee ne dañoo wax ne gàmm moom dafa xaraam sax mutlaqan moom dafa wax ne gis na gàmmu ci alquran ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko wax ne ko wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli maa nu sabitu bihi fuadaka danaa la nettali xibaar yi yonent yi la njëkkoon ngir mu dolli sa gëm yàlla ci sa xol gën a dëgëral sa xam yàlla a dëgëral sa sa sa sa gëm yàlla bàyyi nag ne su fekkee ne yonent bi moom moo gën yonent yi mooy seen kilifa mooy seen lépp mooy seen tëbbuwaay waaye suñ ko nettalee seen jaar-jaar dana dëgëral xolam ci gëm yàlla kon ñun suñ ñu nettalee xibaaru yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ak xibaaru ay saxaabaam naka lañ jàpp euh, euh, fal na leen dina ji fekk ba mu ñëwee nuñ ko nangoo ak naka lañ ko téyee naka lañ ko jëfandikoo ak naka lañ ko tasaaree ci àddina bi loolu dana nekk leer boo xam ne dana nekk ci suñ kanam pour ñu ni tamit ñu xam naka la beneen bi ci topp mooy ñi nga xam ne nee nañ gàmmu baax na ñii dañ ne bésu juddu bi la ñuy euh, feetal ñii ne bésu ngénte bi la ñuy feetal bàyyi mu ne man damay mel ni rek Cissé Cissé boobu nga xam ne dañ ko yekkaloon añ te am ñu toog di ko xaar am ñu koy xool bët mu daal di dugal loxoom tibb ca suuf ñu ne ko waaw lekkin bu ñàkk teggiin bii ngay def moom mooy lan mu ne leen jubluwuma ci ñàkk teggiin mais dama bëgg wan ñii may xool ne bool bi duma ci desal dara kon moom tamit du desal dara ci yonent bi moo tax moom dafay gàmmu gàmmuwaat yaakaar naa ne bëriwut ñu koy def waaye gannaaw gi tamit nag mu jël xalimbaam bind ne euh, juddu bo euh, date boobu nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam juddu woon ci avril bi muy vingt avril bu jotatee mm, jox na ndigal taalibe yi pour ñu dajaloo ko màggal ko pour ñu dajale lépp loo xam ne nii rek moo aju ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye li ci doy waar mooy bàyyi moo jël xalimbaam bind ko yaxal ko waaye moo tànn dakaar yi tamit danañ ko defee Dakar loolu yi tamit mbir la moo xam ne lu jar a bàyyi xel la am na sax loo xam ne war nañ war naa ci profité waxaale ko ci mooy ne am na jamono waxtaan nañ ba gis ne wax dëgg yàlla comme léegi léeg dakaar la te gàmmu gi dafay dajee bu dajee wut ak weekend dafay indi problème pour nit ñi mën a ñëw parce que Dakar ak ak ak ak ak jour liggéey dafay xaw a waar oh, ba loolu ñu ngi ci doon werante di ci wax di seet nu ñuy def waaye ren yàlla wane na ne Euh, yàlla def na jàppoon nañ ko sax le 18 ba pare mais yàlla indi na problème bi nga xam ne moo ñu imposé ñu delluwaat ci ci ci vingt bi parce que comme ci biir kër yi lañ koy defee di ko filmer kon du jarati ñu koy dàkk weekend waaye fekk na sax man amoon naa yéene ne bu ma ñëwee ca gàmmu ga danaa fa wax ne nañ delluwaat xalaat yi ci li bàyyi waxoon parce que Baye këyit gim bind wax ci ne nañ def gàmmu jëppal bi euh, ca ca ndakaar daf caa indiyaale bayti boobu nga xam ne moo nekk ci euh, tahni atu bi muy ahlan bi bi yowmin saara li wastanaara liman xawal faxaara wa gafratan min manzili kon dafa mel ni dafa yaxal ne 20 avril boobu ci lañ ko war a def kon lii war nañoo delloowaat xalaat ci loolu léegi nag euh, lu tax ñu ne euh, ñu ñu ak xew-xew bi li mu am am yépp ñu ne benn xam-xam dañ koy jëfandikoo comme technologie bi am na permettre ñu ñu jokkoo joxante ay njëriñ célébrer suñu yonantu sallallahu alayhi wa te du tax ñu dajaloo du tax ñu def li nga xam ne moom la ñuy aayee comme technologie bi may nañu ko loolu tamit dañ koy jël parce que xam pour jëfandikoo ko la waaye man dama ciy gisaat beneen mbir mooy ne euh, gàmmu gi dafa ñëw ci fekk ci digg corona bi ci digg jafe bi nga xam ne moom la àddina bi yëpp am su ma xel ci saa saasi rek daw daj ne euh, euh, Euh, Abu Lahab mi nga xam ne nii mooy euh, mooy mooy bàyyi yonantu boobu nga xam ne lu nekk teg na ko yonantu bi ba yàlla jéppi ko ba wàccee ci moom tëbbat yadaa abi lahabin euh, xas ko ŋàññi ko jàngaloo ko yonantu bi mu di ko jàng ba bés penci ngir xeex gum xeex yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Lahab boobu borom kës fii nee nañ bésu altine bu nekk yàlla daf koy oyofalal mbugal ma ca safara Euh, am ñu wax ne dañ koy génnee am ñu wax ne dañ koy oyofalal en tout cas dañ koy oyofalal mbugal ma ca safara lu tax ñi di ko ko defal mooy keroog bi nga xamee ne nii yonent bi sallallahu juddu na te jaamam boobu goneem googu ñëwoon annoncé ko ko ne ko Aminatu am na doom daf caa bëgg ba dal di ko goreel goreel googu mu ko goreel ci la yàlla defee ne lu mu mbugal ma métti métti bi si altine boobu mu bëggoon ci yonent bi bu jotee rek yàlla dal di ko ci defal kii ma ne kon est ñu ni tamit duñ jàpp ne bu avril ñëwee tombeek corona bi tombeek problème bi tombeek jafe-jafe bi ci biir loolu suñ ci màggale yonent bi bég ci moom euh, de beesal suñ suñ suñ suñ jokku ci moom beesal suñ gëm ci moom beesal suñ yaakaar ci moom boole ci ñaan yàlla dàq corona bi boole ci ñaan yàlla soulager ñu xaj na loolu yi tamit mën na nekk mandarga boo xam ne yàlla mën nañ cee mën nañu cee jaaree soulager ñu te loolu lañ ci yaakaar te yàlla nañu ko yàlla may ñuy wax taalibe yi nag na lii comme ni ma ko faral di waxee euh, mbir am na waaye nañ ci def jàngat waaye jàngat bi tamit buñ topp jàngat bi nga xam ne moom la àddina bi yëpp di def tubaab yeeg américain yeeg nañ jël lépp waaye ñu ni tamit bu ñuy analyser nañ déparé ci base ñun ay jullit lañ keroog wax naa ko ci alfayda ma ne yàlla dafa wax ne euh, walaw radduuhu ila rasuli wa ila ulil amri dégg nga euh, la alimahu lazi na min su fekkee ne eh, xibaar yii ak fit jafe-jafe yi ak coow polémique am na mu ne su fekkoon ne eh, dañ koo delloo ci autorités yi am na ñuy tëb tëb rek ne nañ déglu autorités yi nañ lii nañ lii nit c'est vrai que foog ñu déglu leen parce que ñoom ñoo yore réew mi ñoo yore santé ñoo yore sécurité bi ñoom ñun amuñu sécurité xamuñ sécurité xamuñ santé foog ñu déglu leen waaye yàlla dafa wax ne ila rasuli ba pare soog a wax ne wa ila ulil amri man loolu li ma ci déggee mooy jullit bi dafay analyser à partir de gëm-gëmam bi mu am à partir de philosophie bi mu am en tant que jullit bu jëlee élément yëpp ba pare nag daal di ñëw dugg ci néeg keroog démb wax naa ko sama benn xarit ñuy waxtaan mu ne ma euh, Kaaba gi tëj nañ ko euh, Iran tëj nañ seen jumaa yi euh, kii nu ñu koy waxee te Fass tëj nañ ko ma ne ko d'accord yooyu yëpp affaire dëgg la waaye est réalité ba nekk Iran. moom mooy réalité bi nekk ci ñun muy benn question ñaareeli affaire ba mooy Sénégal gii ak Medina Baye gii àgg nañ ci xam-xamu diine ak xóot ci foo xam ne naka jëkk Baye Niass dem na ba ca Makka bokk ci ligue mondiale islamique am problème bu jub àddina bi yëpp réer ci borom xam-xamu Arabie Saoudite yi borom xam-xamu àddina bi yëpp yëpp yëpp yëpp réer amatuñ ci luñ am euh, gëlëm moom mu ñëw gindi leen mooy bañ bëggee taxaw toxal ma xama Ibrahima mufti Arabie Saoudite ànd ci borom xam-xam yeneen yëpp. ñii ànd ci ñii noppi ñemewu ñoo wax bàyyi moo bindi téere wan leen ne loolu erreur la ñu ñu kon Sénégal yàgg naa gindi àddina àdd monde islamique kon ñu ni tamit nañ am suñ approche boo xam ne suñ analyse boo xam ne dafay déparé ci am information yi xam li xew déglu li ñu wax yëpp ba pare waaye approche boo xam ne approche su diine la gis-gis boo xam ne ni analyse boo xam ne analyse su diine la waaye ñu ni tamit en tant que ay tasaw ay ay tijaan loolu tamit ci la bokk waaye ñu ni tamit en tant que ay taalibe bàyyi ay nit ñoo xam ne yaa am na ñoo xam ne dañuy tëb rek naan la waaw mufti Arabie Saoudite def na ifta ne euh, bu bu jàngoro amee euh, war ñoo mun a tëj jumaa yi war nañoo mun a tëj nu mu tëddee loolu waxuñ ko parce que ñun waxuma sax jàng mi gën a ndaw fii ci Medina sooy jàng fiq danañ la jàngal na la même lëndëm su amee ba boo génnee doo xam foo jaar am nga droit pour bañ a julli ji ca ca ca jumaa ji euh, boo amee sax góom boo xam ne nii boo ci sot booy jàpp boo ci sottee ndox. mu gën a yokk wala mu yéex a wér am nga droit bañ a utiliser ndox loolu yépp kon mën nañ cee analyser ne lépp luy indi jàngoro wala luy indil fitna nit ki nit ki mën na ko daw diine may na ko ko mu daw waaye nag dafa des benn question est-ce que nit ki moom mu ñàkk óolu jël responsabilité am wala moom mu feebar wala moom mu nekk foo xam ne nii loolu la laaj moom mu jël responsabilité am ñàkk a or wala mu ñàkk ñàkk a julli ji loolu responsabilité individuelle la yomb na waaye réew lëmmu xeet lëmmu nation lëmmu nga ne leen tëj leen lépp bu kenn génn loolu état moo ko war a def ñi nga xam ne ñoom ñoo kilifa yi ñoo ko war a wax waaye du ku nekk rek moo war a wax ci ci ci ci mbedd mi loolu mbir la moo xam ne dafa war a leer nit ñëpp xam ko kon nag daal message bi may joxe mooy message u dal message u gëm yàlla message u ba ma waxoon rek ne euh, Abdul Muttalib keroog bi nga xamee ne nii jug nañ di dox ànd ak kilifa makka yi di uti sam-sam biñ demee ba ci àll bi te seen ndox jeex ñu nekk ci saxaraa bi mu wóor leen ne fi ak ay fan li fi nekk ci ci ci espace yëpp ndox amu fa te ñoom seen ndox jeex nag kon xam nañ ne dee ñëw na lu ñu wax mooy nañ gas ay bàmmeel ku nekk toog ci sa bàmmeel ku dee ñay dund suul la ku dee ñay dund suul la ba mu des kenn koo xam ne ñii moom moom lañ suulu ci aw xeet moo gën a num moo gën a jaadu ñoom ñëpp ñu rafetlu ko Abdul Muttalib def na leen lii fii di ñàkk-ñàkk ndox li may ñàkk li yaakaar di ñàkk-ñàkk man li ma xam mooy dee mii comme loo waaxu waaxu mu dab la loo daw daw mu dab la damay dox rek ba mu dab ma mais du taxaw di ko xaar koo xam ne nii mënoo fexe ba du la dab jarut xaar da ngay dox rek mu ne nañ ma takkal sama gëléem gi man ma jug dox ci euh, dem euh, di dox ba dee dab ma do dogu googu mu dogu ci yàlla ak gëm-gëm googu mu óolu yàlla ak yaakaar yàlla ak tamit di liggéey wax bu ya ya rabbuka rabbaka xataa yaatayka leqiin jaamul yàlla rek ba dee dab la ci loolu la nekk pas-pas bu dëgër boobu ak gëm-gëm googu ak yaakaar googu moo tax yàlla génneel ko sam-sam foofu ci àll boobu muy ndox mu neex ndox mu barke ndox moo xam ne euh, lu nekkan ci bu ko defee ñu daal di naan sangu daal di duy seen mbuus yi nekku nañ continuer mu ne déedéet ñu ne ko déedéet ñun dootuñ continuer nañ dëpp mandarga bi mooy wane ne yow yaay ki nga xam ne yaa yaa moom yëf yi kon mandargaam jullit mooy gëm yàlla mandargaam jullit mooy dogu di jaamu yàlla ba yàlla dab ko mandargaam jullit mooy euh, xam li xew ci àddina bi jëflante ak àddina bi ci xel loo xam ne sante la ñi xam santé suñ la ko waxee nga def ko loo xam ne sécurité la ñi xam sécurité suñ la ko waxee nga def ko waaye nag mu des beneen point bu mujj bi mooy ñu fexe ba créer solidarité islamique waxuma solidarité solidarité solidarité yi ñuy def yëpp baax na yi état bi di def baax na yi politiciens yi di def baax na mais man solidarité islamique laay laay laay oote solidarité islamique mooy lan mooy nit ki am na koo xam ne benn nit la mën a dimbale na dimbale benn nit am na koo xam ne benn kër la mën a dimbale na dimbale benn kër am na koo xam ne benn quartier la mën a dimbale na dimbale benn quartier dégg nga de am na koo xam ne am na ñoo xam ne am nañ nekk ci benn quartier kii am na kii am na au lieu ku nekk di jaar ci sa place ñuy joxe ñoom nañ waxtaan Kaolack maanaam li ma gis euh, Alaaji Moussa mooy Kaolack li fi jot génn ci ay ndibbal jaar ci politiciens yi jaar ci bon volonté yi jaar ci sëriñ si jaar ci nangam suñ taxawoon waxtaanee ko boolante ko kon suñ tëjoon Kaolack un mois sax nit ñi danañ am luñ tuddee loolu nag kon war nañ cee xalaat parce que yii yëfu l'islam la te lislaam Euh, man waxuma ci dama bugg sax ñu dépassé de wu ñiy wax naan ba léegi feebar bi dafa am ñu ko gëmut wala waaw yéen toog leen seen kër yi ñun wax ji dootul waxi feebar bi dëgg la wala dëgg parce que addina bii avion yëpp taxaw oto yëpp taxaw économie bi yëpp taxaw àddina bi yëpp yëpp paralysé loolu kenn du ko def ci kaw euh, ay ay cinéma ak ay dumtati am na lu xew mais problème bi mooy li xew dootut toog leen seen kër yi dootut Euh, def leen lii dootut bu leen nuyoo dootut bu leen nangam mais nit ñi nga dimbale leen ci toog seen biir kër yi mooy nga organiser solidarité boo xam ne lu mu bon bon gis nga Europe waxuma solidarité bi état bi di def waxuma solidarité bi France sax gis naa fa solidarité boo xam ne nii wax dëgg yàlla Sénégal la jaadu woon mooy ay bonne volonté yoo xam ne dañuy dajal liñ am di seet nit ñu néew doole ñi mag ñi ak ñenn ñenn ñu néew doole ñi di dem ba seen buntu kër yi fëgg leen jox leen dund dégg de am na ci benn jeune boo xam ne dafa volontaire bokk ci ñi nga xam ne ñooy distribuer euh, dund bi am journaliste bi laaj ku ne ko waaye yow lu tax nga bokk ci xanaa yow ragaloo feebar bi ak i tamit fayuñ la mu ne ko noonoo dama gis ne rek comme man maa ngi wér daal en en tout cas feebar bi dalaguma am na ñoo xam ne nii feebar bi dal na leen déjà te am na ñoo xam ne tamit feebar bi dalu leen waaye ñu ngi leen tëj seen biir kër yi man ma volontaire bokk ci ñi nga xam ne ñoom la état bi di jël mu nekk sama participation parce que man du ma médecin mënumaa faj du ma soldat bu mën a nekk ci mbedd mi wala policier mën a mën a garder sécurité bi du ma du ma du ma journaliste boo xam ne mën naa nekk joxe xibaar yi yi nga xam ne moo wér kon man suma participation moo war a doon lan au lieu que nga dem di bokk ak journaliste yi seen seen seen seen seen liggéey di joxe xibaar yoo xam ne kenn kenn waxloowu la ko wala ngay analyser loo xam ne xamoo ko wala ngay joxe fausse information wala ngay dem ci ci santé di wax yoo xam ne di di jox ni ñi ay ay ay ay ay ay information yoo xam ne ak ay directives yoo xam ne xamoo ko da ngay dem ci côté bi nga xam ne nii yow boo ko defee ñëpp danañ xam ne côté bi mën nga ko man daal loolu laay oote buñ ko defoon ci niveau Kaolack def ko au niveau national Euh, bu boobaa maa ngi dégg sax ci France tey wax bu ma neex boo xam ne maa ngi ko doon wax bu yàgg ñu ne dañoo war a organiser pour compléter effort bi nga xam ne moom la gouvernement bi di def ma ne voilà man lii laa waxoon depuis un mois ne état bi complémentarité la ñu war a demee état bi li mu war a def mu ngi koy def ci côté sécurité ci côté santé ci côté nangam ci côté nangam ci côté nangam mais ñun nañ seet li nga xam ne état bi nee na nit ñi toog leen seen kër yi. li wérte wóor mooy état bi amut lu doy lu mën a jox mboo bi képp kenn ki nekk ci ñun ci ko war a toog pour pendant un mois wala un mois nangam mu toog ko këram état amu ko loolu États-Unis sax amu ko waaye kon léeg-léegi su fekkee ne état bi yow sax da ngaa farag moom te moom nee na ne nit ñi toog ci kër yi dimbaleel ñi nga tane ñetti nit ñeenti nit fukki nit juróom fukki nit yi nga xam ne mën nga leen a dimbale bañ bañ bañ respecté euh, ndigalu état bi mooy toog ci biir kër yi man loolu mooy message bi nga xam ne moom laay oote te loolu mooy message u diine te parce que diine mooy laayaante biir waaye gàmm mooy lan mooy xamal nit ñi kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi sallallahu alayhi mooy kan mooy ko xam ne moo gën ko ci àddina bi mooy kan mooy ki nga xam ne moo ëpp yërmande ci mboolem jaamu yàlla mooy kan mooy ki nga xam ne moo ëpp euh, xër ak dimbale doomi aadama fi ma koy tëjee rek mooy muy mu mu leer li ma bugg a wax yëpp ma résime ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamee ne nii euh, wax yu gi feeñu na ko jibril ñëw naan ko jàngal mu ne ko duma jàng te situation boobu xawoon koo jaaxal parce que nit heure bu gisee loo xam ne nii mu ngi koy soog a gis foog mu xaw koo jaaxal dégg nga nit rek la bi nga xamee ne nii tiit na jaaxle ñëw ci jabaram diisu ko ne ko man kii di ma feeñu naan ma jàngal benn man samay maam xamuñ jàng lii mbiram jàng arab yi xamuñu ko sama benn maam mosu koo xam mu di ma ko wax loolu benn problème la ñaareel ba mooy ki may feeñu man rek maa koy gis waaw ak melokaane bi mel ragal naa ko est-ce que du seytaane déglul bu baax li ko sidna li ko sayyidatuna Xadijatu wax daf ne ko yow yàlla du la seetaan li wér wóor mooy yaa ngi yore jikko yoo xam ne ku ko yore jikko yooyu siiñ la ci ne yàlla bugg na la yàlla du la sàgg jikko yooyu yim ko tuddal bokk na ci ne ko da ngay dimbale néew ji doole bokk na ci ne ko da ngay jokk mbokk mais bokk na ci ne ko da taxawu sa xeet ba li nga xam ne nii mënaluñ ko seen bopp nga dem utali leen ko jottali leen ko loolu ñett jikko yooyu moo gën a fés ci jikko yi nga xam ne moom la ko waxoon nga ne ne moom moo tax yonent bi yàlla du ko sànq kon ñun suñ buggee nekk xeetu yonent bi dëkk suñ buggee feeñal suñ taxawaay en tant que ay jullit ci xew-xew bii nga xam ne ñun nattu yàlla rek lañ ko gisee te yàlla rek ko mën a yëkkati nag buñ bëggee comporté wu comportement boo xam ne ëllëg bu ko histoire nettalee du du dana rafet ci ñun mooy lan bi mbir mi xewee état def na nangam état def na nangam loolu beneen histoire la mais ñun en tant que jullit lan lañ ci def mooy kenn ku nekk mën a yëkkati sa loxo ne man de kenn ki ma tane dimbale naa ko kenn ki nga xam ne mën naa dalal xelam dalal naa xelam kenn ki nga xam ne am na loo xam ne soxla na ko ci jamono boobu te mënu koo uti man dem naa utali ko ko loolu nag ci fin ba ñu def ko individuellement bu kenn xeet kenn dama wax ne ki mën a dimbale kenn na dimbale kenn waaye ki mën a dimbale kenn ci benn añ sax na ko def ki mën a dimbale nit ci benn bés na ko def bu ko defee bu boobaa nag ñu di ko yéegal di ko yéegal ba agsi nag ci état bi ba agsi nag ci ci ci ci ci Sénégal yépp bu boobaa yëf yi dafay jàll ci jàmm te suñ comportement boobu ñu ami tamit ci wàllu yërëmante wàllu uufante wàllu dimbalante wàllu wàllu yéeneante jàmm suñ ci boolee ñaan yi ñuy ñaan pour yàlla dindi affaire bi bu boobaa nag yëf yi dafay dafay dafay dafay dafay dafay yomb loolu daal mooy message bi nga xam ne moom laa amoon di ndokkeel ñëpp di ndokkeel xalifa bi di ñaan yàlla mu yàgg fi te ak doo ak ak ak ak kattan ak ambition yu yu sotti di ñaanal Cheikh Mahi euh, euh, Ibrahim Niass di ñaanal euh, Cheikh al Amin Cheikh Mouhamadul Amin ñas di ñaanal imam imamul hadrati di ñaanal réew mi yëpp ak. ak dëkk bi yëpp ñi ko ŋànk yëpp yàlla may ñu jàmm may ñu sutura wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa